d'abord à la CEDEAO, ouais. les trois pays qui, ont, qui sont démarqués, bon, je pense que c'est déjà, ils son dans leur logique. Hein. Voilà, parce que yàggoon nañ ko bëgg a def. Et puis bon, xam nga il y a une nouvelle euh, vision euh, panafricaine, je dirais, mm. que beaucoup de pays adopte euh, jàpp ñu bëri jàpp ne nag la CEDEAO aujourd'hui te déwul jaaxanaay lu ñoo leen jàpp ñoom c'est dans leur conception parce que boo leen dégloo Et aujourd'hui il faut dire que aussi la CDAO, d'une autre manière, ou bien dans une, en tout cas en grande partie, parfois il y en a Aziz dafay xaw a paradoxal c'est par rapport ak moom lu muy prôné donc yooyu bu amee la CEDEAO aujourd'hui bon la seule chose à faire et benn affaire la mooy dem négocier avec ces pays là parce que comme ni ko suñu papa waxee c'est en tout cas c'est c'est très risqué et mm. ça va être très difficile pour les peuples aujourd'hui boo ñàkkee Niger nga ñàkk Burkina. nga ñàkk Mali ah quand même là euh, euh, en tout cas sur le plan diplomatique aujourd'hui Sénégal tey diplo euh, relation yi mu am relation yi mu am ak Mali ak Burkina et cetera aujourd'hui ça va pas nous faciliter la tâche. et, mhm. les autres aussi les autres pays. Ah, je pense que aujourd'hui ils sont dans leur logique et je pense pas qu'ils vont revenir parce que bu ñu xamee ñu ñu leen ñu rek ñu xam déjà la mentalité c'est des soldats qui sont devant ça et puis bon jàpp nañu lii moo leen di mën a jëmloo kanam certainement parce que maa ngi dégg sax ils sont vers ils ont vers ils vont ils vont aller vers une création d'une nouvelle monnaie. Hmm. donc euh, bon je ne sais pas. c'est facile à dire je suis pas économiste bon nekkuma di liggéey ci wàllu monnaie. mais xam naa ni ils ont quelque chose en tête et ils vont aller. ils essayer non ils vont essayer. mais benn côté aussi je dama leen di comprendre parce que comme ni ma ko waxee c'est la CEDEAO dans dans certaines circonstances voilà parfois euh, voilà parfois ñu nangu lii parfois li nga nangu fii ñu bañal ko kii au bout du compte voilà la CEDEAO mhm. doit se revoir la CEDEAO doit se revoir pour terminer la